بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقلة من لساني يفقه قولي بوكي دي سن كادو نغلي نيو بالاسلام تماي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ginnaaw nuyoo bi ñu fas yéene tàmbali ak yéen jataay boo xam ne dañ koy jëmee ci benn ponk ci ponk lislaami juróom yi ponk lislaam yi eh, juróom la comme ni ko ñépp xame yonente bi sallallahu alayhi moo ko wax lislaam dañ koo tabax ci juróomi keno bu njëkk bi mooy seere ne Yalla mom moy bour mom kese te mo yoni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñaaral bi mooy taxawal julli ñettel bi mooy genné azaka ñentel bi mooy wor weeru koor juróomeel bi mooy aj makka ci kuko man ponk yo nga xam moy mooy ponk l'islam nak yalla dafa ko faratal ci ñun mu nek farata ci bépp julit ci mukallaf waaye yebal itam ndaw muy muhammad sallallahu alayhi wa mu ñëw ngir jàngal ñu ko muy loo xam ne kon dañ ko war a xam ndax lislaam moom amut làmbut nanguwut làmbut ginnaaw bi nga xamee ni nag def nañ ay jataay yu aju ci koor def ci ay ojo lu mat ñaar fukki audio juróom-ñeent def ay jataay ci aj màkka moom bind ci sax ay téere ci ay làng yu wute def ci ñaar fukki audio moom tey dañuy tàmbali jataay boo xam ne dañ koy jëme ci ñetteelu ponk ci lislaam te mooy azaka ndax azaka yàlla moo ko digle yonent bi sallallahu alayhi tam gën koo feddili ba noppi tam leeral ko mu am nag ay détails yoo xam ne mat naa xam te yooyu mooy azaka kan lay war ak ñaata la nit ki am war ko ak ci yan lañuy génnee azaka ak ku dem ba koy génnee nan nga koy génnee yooyu yëpp di yu mat a xam te gannaaw farata la bokk sax ci ponk lislaam yi nga xam ne ku wedd ak waram dañu jàpp ku génn ci lislaam loola mat naa xam kon jotaayu incha allah moom lañ fas yéene tàmbali darañ Euh, leeral bu baax a baax lan mooy azaka waxitam ñan lay war waxitam itam kañ lay war maanaam ñaata la nit ki am mu doog koo war waaye waxitam itam ya ñuy génnee azaka waaye wax itam ya ñuy génnee azaka lu ci nekk lan mooy nisaab ja lan mooy la nga xam ne ku ko ca am azaka la doog caa war dañ wax it insha allah azaka joju buñ ko genné ba nopi ñan lañ ko wara jox te ñoñu yalla moko wax ci alquran dañ ko détaillé ñoñu ñoñu ñooy ñan euh, yoy yëpp di ay point yo xam insha allah allahu fas nañ ko yéenee leeral ak yeneen point yi soo sowaan yoo xam xaj aju ci azaka lu mel ko am ay bor tam la ya, la maitre de capital bu fayaan boré jeex ndax day azaka am déet ak ko xam day génne azaka ñu amel koy bor euh, yoy yep insha allahu ay point la yoo xam ne bëgg nañ koo leeral waaye jotaay bu njëkk bi fi ñu ciy tàmbalee rek moom mooy xamle azaka li muy tekki baatub azakaatu ci arab su ko arab waxee li muy tekki dëgg-dëgg mooy ak yokk ak barke ak laabal baatub zakat muy azaka ci arab li muy tekk ci cosaan ci làng arab mooy yokkute ak barke ak laab loolu danga nga ciy dégg ne kon kuy génnee azaka sa alal day yokk sa alal day am barke waaye day laab loolu nag wuute na ak lu ñu li ñu ñenn ñu jàpp jàpp ne azaka boo ko génnee sa alal wàññeeku ndax ab som ngay génnee jox ko ñeneen eh, loolu tax na sax ba am ñoo xam dañuy sàggane azaka duñ ko génnee ndax jàpp ne seen alal day jeex fekk demewut noonu azaka day yokk alal. te yàlla moo ko wax ci alquran yàlla moo wax yonent bi sansom ne ko xuz min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yow yonent bi jëlal ci alal jullit ñi azaka jox ko ñu ñàkk ndax soo ko defee kat loolee nga jël tutahhiruhum wa tuzakkihim biha moo li ni laabal te mooy seen alal moo koy yokk kon azaka dafa yokk alal loolu mooy maanaam zakat maanaam bat bi tekk ci langue arabe ci làkku arabe bu dee ci charia la nag ci fiq asaka buñ ko waxee lañ ci jublu moom mooy som boo xam ne yàlla moo ko farataal ci jullit ñi ñu war koo génnee war koo jox ña ko yayoo mooy ña war a lekk asaka war ko génne ten ci alal juñ xam tamooy mooy alal joo xam dafay mat nisaab day mat som bi nga xam ne moom la nit ki am dooga a mën a génne azaka waaye tam bu koy génne mu génne ko ci mu génne ko ci charte ya ñu xam charte ya bokk na te na mat at te ko koy génne tam moom ko yépp danañ ci ñëw ci ay détails insha allahu su ko defee kon mu génnee alal jooju def ko ngir sant yàlla ci xéwal yi ñu ko xéwale muy alal jooju waaye itam jege jege lu ko ak jaamu ko ak jëf ndigalam waaye itam sellal bakkanam ak alalam ak laabal ko kon loolu moom mooy li asakay tekki kon asaka dafay laabal alal dafay fegal alal ay gàkk-gàkk ak ay tolof-tolof ak yàqu waaye tam day tax ba alal yokku ci zahir ak ci baatin yépp waaye itam dafay bégloo foqoraa yi ak masaakin ak ñu war a lekk asaka di leen dimbali di leen génn ci ay situation yi ñu nekk nga xam ne mën naa dema dem sax ba tax eh, nit nekkoon ku faqir ku ñàkk dema dem ba asaka tax mu génn ca loola la mujj nekk woomal waaye dafay laabal bakkan itam dafay laabal bakkan eh, moom asaka des na ko tudde sadaqa moy ab sarax lu mel laay bob mo wax sank khuz min awalihim sadaqa moom la yalla wax yonent sallam nako ko ci seen alal yi ab sarax waye fofu azaka la ci jublu batay tam mom moom bi sallallahu alaihi wasallam bi mi yabal maas in jabal mu dem yaman bam koy wax yam koy digal tambale ko ci bo demee nañ len wo ci wéetal yàlla gëm yàlla gëm yonentam buñ d'accord yow ba noppi nga wo len ci julli te mooy juróomi julli yaari farataal ci ñoom bis bu set buñ d'accord ak yow ci loolu ba noppi nag na leen xamal ne yàlla kat dafa farataal ci ñoom sadaqa muy ab sarax boo xam ne dañ koy jël ci seeni way woomal mooy ñi am lu lu mat nisaab te ko at jox ko seeni way ñàkk way ñàkk jullit ñi kon foofu gis nga ne azaka ñu ngi ko tudde sadaqa muy ab sarax kon léeg des na ko wooye zakat muy azaka léeg-léeg itam ñu woowee ko sadaqa muy sarax waaye ñu jublu ci e, azaka moom azaka moomu kan la war ki war mooy bépp jullit boo xam ne gor la ba noppi itam am alal joo xam ne mat na nisaab nisaab nisaab ja nag sart ba mooy na fekk nisaab ja ay bor ko ca bor yoo xam ne da koy jeexal bor yoo xam ne daal day jeexal nisaab ndax bu fekkee nit dafa am alal joo xam ne mat na nisaab te nisaab danañ wax mooy lan ci alal ju nekk danañ ko wax ci xaar wax ko ci nag wax ko ci gileem wax ko ci xaalis wax ko ci am mbay yooyu yëpp danañ ko wax incha allah waaye bu fekkee nit ki am nisaab te nisaab de kat su fayoon ay boram léegi day jeex wala boog lay des dootu mat nisaab su ba du ko war danañ doon ñëw ci yooyu ci ay détails mbaa boog mu yor loo xam ne daal dafa yam ci bor yi matam ni sax waaye daa ci ay borom euh, nisaab ji pour nga génne asaka day fekk euh, mu maanaam mu mën a faj say aajo sab dund maanaam sab dund ak dund ñi nga xam ne yow yaa leen war a dundale lu ne la ngay lekk la ngay naan la ngay sol sa dëkkuwaay sa waruwaay ak yi ngay jumtukaay yi nga soxla ci kër gi yooyu danga koy am ba pare Eh, misaab jotam soo ko amee day fekk nga yor ko atum yàlla maanaam weer ba weer du si déwén si moo tax asaka man caa war waaye lu alal lu mu bari bari bari eh, yoroo ko at eh, maanaam yoroo ko at mu mat sëkk kooku asaka du ca war kon faaw day mat nisaab ba noppi day mat at loolu mom moy ngirum imam malik di ngirum imam shafii di ngirum imam ahmad ibn hanbal di ngirum abu hanifa eh, mat gi at nak budé mbay mom am mbay mom bokku ci mbay mom bokku ci mbay mom sa yo gobé rek sa sa mbay ma ñoré rek ba nga daggo ko ci ngay génné asaka mom ci saas ndax yalla dafa wax ci alquran ne wa atu haqqahu yawma hasadi ngeen génné ak yalla bis ba ngeen gobé gis nañ góobee eh, at googu itam mat gi at itam liñ tudde almaadin ak rikaas yi muy jóge ci suuf te dañ ci gën ñëw ci ay leeral yooyu ba tey bokku ci kon ñu taxaw fii ba ëllëg ñëw yéen ci beneen jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullah